dañ ñu invité ñu ñëw comme euh, tey la journée internationale euh, pour les droits de la femme internationale donc euh, moo loolu rek moo ñu fi indi ñu xam ne suñuy sœur ñoo fi nekk ay jigéen ñoo nekk fii et pourquoi pas ñu aw fi bokk fedd ak ñoom quoi. wax nga ko léegi ay jigéen ñoo fi nekk ku wax jigéen xalaat kër ga xalaat toog bu xalaat lépp léegi tey jii bu ñëwee fi ñu gis ne jigéen ñi nekk fi ñu ngi derrière les barreaux ban yëg-yëg ngay am. waaw du neex ci xol waaye xam nga nit boo dee jullit nga da nangu li yàlla def. donc ñun ñii kenn xamul ndax di nga ci muccam déet donc ñi fi nekk peut-être yàlla dafa dogal ni dafa bokk seen yoon rek ñuy ñaanal yàlla mu génn leen fii te xam ne ñoom ci biir société bi la ñu bokk comme ni nga taxawee nii ma taxaw ñoom noonu la ñu war a mën taxawee di am seen soxla dem di ko doxi mais peut lii moo gën ci ñoom am na lu muy fànq ci ñoom yàlla yàlla teggi leen lii loolu rek lañu ñuy yëg du neex ci xol quand même mais dañuy nangul yàlla dogal ci jàmm bi ñi xam Aba dañuy wax ni Aba ku am yërmande la ci jigéen ku mën a teral jigéen la violence faite aux femmes nekk loo xamante ni ci àdduna wërngal képp dañ koy xeex waaye di ko dégg fu nekk lan nga ci wax yëfu ngaaka la yëfu dof la parce que femme euh, bu dee da ko am moo xam muy sa rakk moo xam muy sa soxna euh, femme boo ko yoree surtout sax ñi nga xam ne ñooy gën a def violence faite aux femmes da nekk ay jëkkër yu koy def seen soxna ba nga koy wuti ak ba nga koy nopp metti na ci yow metti goo xam ni boo ko amee indi ko kooku une reine la war a nekk mais pas jàmm nga koy jël di ko maltraité et yëf dof la foo gis ku toroxal jigéen wala ku koy sonal bu génnee bu tooñee dañ koy mën buñ ko tooñee moom la ñuy mën te du mën faj dara dañ koy fajal fu mu toll donc loolu yëfi nit gentleman day sagal jigéen da koy sigil da koy taral loolu mooy yëfi gentleman ak ban laaj Sénégal am nekk parce que Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko 8 mars bii ñëwaat ñu def benn ñaar artiste xam ne ay couple yoo xam ne ay artiste lañ ñu am ay problème sama vie privée daf maa doy sëkk man nit ñi dañu ma bëgg du ma génne sama gémmiñ loo xam ni kii mën na ci mer wala kii di ci bëgg moo tax chaque fois bu yenn yi amee du ma bëgg jël benn position duma ma ci bëgg wax li may ñaan mooy Sénégal yàlla na ñëpp am jàmm. mami xaaruma ba ay 8 mars di ko jokkoo de. mami heure bu ma xëyee dama koy jokkoo parce que tamit man sama ren ginnaaw euh, sama yaay ak samay doom aw ma lu ko ëpp moom. donc mooy sama xarit mooy sama lépp man aw ma xarit ànduma kenn sama soxna laay àndal mooy sama lépp donc yàlla na ñëpp am jàmm maa ngi kontaan ci yéen bu baax a baax maa ngi kontaan ci yéen bu baax non loolu indiwuñu fi quoi li moo ñu fi indi. ba leen di wut ay continue bay mettre nit ki mal à l'aise man comme yéen la ay homme de presse ngeen may homme de presse su man fi nekkee ñëw ma taxaw nañu waxtaan mais da leen fexe yéen la presse ngeen ñuy bumax ñun ci lu baax ñuy wax lu baax mais bu leen ñu puus ci loo xam ni day dañuy wutal ay noon wala dara bu ma nee ay coowal waali wala dara du ma ci wax loolu du actualité bi lii moo ñu fi indi donc c'est pas pour wut ay contenu bëgg ko am rek da ngeen wax lu nit ñi lu nekk on est conscient quand même et puis mën nañu am ay contenu yu baax yu positif mais chaque fois dañuy wut lu jaxase wala lu ñaaw loolu c'est pas euh, pour loolu du yëfu presse donc presse bi dafay war a nekk di boole di kii mais yor sa yoroo sax caméra portable nga yor di wax ay waxi jaxase yéen rek a jaxase réew mi yàlla ñëpp am mais euh, xam nga chaque fois booy fàttaliku li nga dund ak sa soxna dund ko ak sa yaay du chaque le 8 mars wala dara tey am nañu journée euh, fête de maire am na yeneen fête yoo xam ne Saint-Valentin c'est pour les couples c'est pour les femmes donc day bari donc ñun dañu mën a wax ne chaque jour dañu war a fêter la femme bu dul sa doom di sa soxna di sa yaay donc femme c'est la vie femme c'est nous ñoo ñu def ñoo ñu tax ñu nekk donc ñoom ñooy suñu ay ren chaque jour dañ leen war a fêter chaque jour dañ leen war di màggal leen teg ci kaw góor gu koy def doo ko réccu